wassalaatu wassalaamu ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dhil maqaamaati al-aaliya waddarajaati as-saamiya wannafsi as-saafiya shafii'inaa yawma al-jaathiya salaatan nanaalu biha aishatan raadiya wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa haadihi kalimatu shukrin wa imtinaanin wa tahniatin wa salaam أقدمها إلى صاحب القلب الطيب إلى صاحب النفس الأبية إلى صاحب الابتسامة الفريدة إلى من حارب وساهم بالكثير من أجل جده الشيخ أحمد بامبا أعني به أبت العزيز almuwaqar almuxtarim fadilat alcheikh mohamadul muntaqa bachir almbakkiyu xalifatu alaam liltariqati almuridiya amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdul Qadir al Mbakiyu radiyallahu anhu ñoo ngi yëkkati kàddu yu tedd yu ànd ak yéene ak yëg ci biiru bokk goo xam ni la ca yàlla diigal mooy la leen boole ci innamal muminuuna ixwa innamal muminuuna ixwa mooy li boole nit ñi ca yàlla yàlla islaax la ca bëgg moo tax mu ni fa aslixu data baynikum bokk gi nag mooy wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaama yàlla taqwa la ca bëgg kon li ñu boole ca yàlla ak li ñu boole ci bokk ñoo ngi fas yéene yëkkati kàddu yu tedd yu ànd ak yëg-yëgu ruux ànd ak yéene ànd ak feeñal ko ci jëmm ju tedd ji toog ci sawet wet di sunu kilifa di cheikh Seyd Ahmed si ibnu cheikh alxaaji Abdul ñu bàyyi ko ci ku tedd ku bokk ci yéen ngeen bokk ci moom ngeen di moom mu yéen muy mawlaaya cheikh sid Aboubacar si ibnu cheikh alxaaji Mouhamadul Mansour xalifatu al aam li tariqati tijaniya nee na moom lott na ci li xolam ëmb mu jaarale ko ci làmmiñam moo tax mu am làmmiñu ku mu ab koo xam ni moom ak cheikh Mouhamadul Muntaqa ñoo ko bokk te mënuñu koo séddoo muy jëmm ju màndi ci leer am cër ca yàlla te ñu rafet njort ci moom te ilaahiyal qalba fatxan laduniyan rabbaniyan ilahiyan fadlan ci mbaaxam wa minnatan ak ci teranga ki def loolu wa allamtani sirran mu xamal ma lu ñuy déeyoo te kenn du ko wax bihil qalbu usjida ndekete li ñuy sujootal yàlla ci jë yépp yàlla soxlawul sujootu jë xol bu sujoot la bëgg ci xadara ba mu ni yàlla defal na ma ko mu ni bi ma sujootee nag fa jugtu bisaatal xaqi fi xadaraatihi ci laa xuus màndingu yàlla yi nga xam ne tànk du fa yóbbu nit ba mu jeex tàkk wa xustu ma xuus bi xaaral nuur géeju leer yi nga xam ni nit song na ko ba tàyyi lab ca waaye la ma ca tax mucc mooy mu ay yadan dëgërloo ndëgër laay loo xam ne jógewul ci kenn min ka ci lu dul yow yàlla tukki boobu nag fala xadaratun fi bisaati alxaqi illa shahid أحببت جمالها فلا حضرة في بحار النور إلا شهدت جمالها xam ngeen lu ma ko may tusaabiqu lil ashwaaqi dawman muhammada kooku mooy Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy Maodo ibnu Cheikh Seydi El Hadji Abdoul Aziz jëmm jooju le Serigne Babacar Mouhamadul Mansour ab làmmiñam ne ko nuyul ma sa maam Cheikh Ahmadou Bamba ak njabootam sa làmmiñ woowu nag dénkal ma ko Chérif Sidi Ahmed si moom la ma Sidi Ahmed jox ne naa ko jottaleen Sëriñ Maodo ne salaamun aleykum ahla tuuba bi yowmikum fa akrim bihi yowman bihi qadima alqutbu wa akrim bihi yowman yatiihu bi nuurihi banu shaabi turran bal kada sharqu wal garbu fa yowma quduumi sheyxi ramzi kifaaxina tasaaqata ahlu shirki fantasara saxbu ka anni bihi wannuuru yamla'u wajhahu yaquulu ila taxriiri yaa ayyuha shaabu alaa baaraka arrahmaanu fi lahli baadahu li yuxyiya darban saara qablu bi hirrak fa hadihi taxiyati wa tilka mawaddati uqaddimuha walruuxu waljismu walqalbu Cheikh Alxaaji Malick Sy ibnu Cheikh Alxaaji Abdul Aziz neena maa ngi wuutu sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour di potoxalu ci sama jëmmu rakk ju tedd ji di wax salaamun aleykum ahla Touba bi yowmikum ci bis bi waaw salaamun aleykum bi yowmikum yéen njabootu maam Cheikh Ahmadou Bamba ci bis bu tedd bi nga xam ni bisu wuti la woon waaye bisu am la ndax ci diggante as sabru ak as shukr la potoxal boppam di wuti ànd ak yàlla waaye dellusi indaale yàlla ne sant la leen ma ko mu ni fa akrim bihi yawman kaaw teefu tedd nga bis bis bisu teraanga boo xam ni bihi ca bis boobu xadima la dellu si sëñ Maodo ku yéeme la ataa aqbala xadara zaara taraqa xashiya waafa warada yii yépp dafay firi dikk waaye ataa ku jógewul fu sori lañ koy wax aqbala ku am lu mu bëgg xemmem ko di ko wut lañ koy wax xadara ku ñu invité lañ koy wax ku namm nit di ko seeti lañ koy wax faraqa kuy dox guddi lañ koy wax rashiya koo newul kaay neewula maa ngi ñëw ngeen bokk daje kooku lañ koy wax waafa koo joxanteel rendez bu ngeen war a daje ci yoon lañ koy wax warada ku teenam dëy robineem tëj te mu soxla ndox lañ koy wax mu ne waxuma ak Cheikh Ahmadou bàmba ci yépp dama ne qadima min makanin baidin alqub gis nga ni muy tànnee kalima yi ndax xam ki muy waxal kan la ak xam li mu doon ci moom ba tax xalifa bi ab làmmiñam mu ni wa bi bihi kaw teefuk tedd nga bis boo xam ni yow man yatiihu kamantaaha fii tiihin wa qaama yajuulu ñan banu shaabi doomu réew mi lu leen tax a gëlëmloo mu ni ñu gëlëm bi nuurihi ci leeru wilaaya Cheikh Ahmadou Bamba turlan ñépp laa wax bal li fi nekk sax kada charqu même les occidentaux wal garbu et les orientaux mu ni fa yowma quduumi cheikhi ramzi kifaaxina ne na bisub dellu si maam Cheikh Ahmadou Bamba moo symbolisé notre victoire ci bépp xeex boo xam ni engagé woon na ko jàmmaarloog ña amoon xalaat ca yàlla te ñoo ñooy ahlu shirki mu ni bi mu leen gësëmee te saaqata rot nañu ba jeex benn par benn ñu ni ko ñan mu ni ahlu shirki ña amoon xalaat ca yàlla ba ñu jeexee takk fantasara la yeewee ko as sax bu ña ko toppoon Cheikh Alxaaji Malik Maodo nee na ka anniya bihi dafa mel na sax dama ko fekke ndax ni ma koy janeere wan nuuru te leeru wilaaya ga yem la ma nga fees dell ba ëmb wajhahu kanam nga yaqulu muy wax moom si Ahmadou Bamba mu mel ni maa ngi dégg kalima ya ila tahriri shaabu yéen doomu réew mi am nañu victoire am nañu liberté kenn ku ci nekk mën na yeeweeku dellu ci bokkam kon Cheikh Alxaaji Malick Si Maodo nee na ala baraka rahmaanu maa ngi tàllal yàlla loxo mi nga xam ni rus na sëmbërtal barke samp ko fuñ ko miine mu du ko rékkiwaat fil ahli ci njabootu Serigne Touba baadahu gannaawam Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacke li yuxyiya darban baadahu gannaawam cheikh Mouhamadul Fadil bi duuni fa bi duuni fudul li yuxyiya darban baadahu gannaawam cheikh Abdoul Ahad Mbacke li yuxyiya darban baadahu gannaawam Serigne Chouaïbou Mbacke li yuxyiya darban baadahu gannaawam cheikh Abdoul Qadir li yuxyiya darban baadahu gannaawam Serigne Salihu Mbacke li yuxyiya darban baadahu gannaawam sëriñ Mouhamadul Amin Baara magam ju tedd ja li yuxyiya darban baadahu gannaawam sëriñ Mor Mati lay li yuxyiya darban baadahu gannaawam ki fi nekk tey muy cheikh Mouhamadul Muntaqa al Bachir darban xàll woo xam ni saara jaaroon na ca bihi ca xàll wa xablu démb ar rakk bu gaañu baax ñaa mooy toogaayu cheikh Mouhamadul Muntaqa tey Cheikh Al Hadj Malick si Maodo nee na fa haadihi lii ma bind ngeen dégg ko man mu doyee di mii sama baay bii sant ma ma jottali ko nee na taxiyati moom laa wuutoo xalifa bi di ko ko nuyul mbokkam ki ko génnul fenn te génn ko fen wëttil ka li ma waxul nag te ëmb ko ma wëddati uqaddimuha di ko feeñal war ruuxu ci li ma yëg wal jismu ak ñi ko teewe wal qalbu ak yéene kon kàddu yi moom la Cheikh Alxaaji Malick si Maodo ibnu Cheikh Alxaaji Abdul Aziz xalifa bi ndaxañ ko ci jëmm ju tedd ji ci wetu mbokkam xaritam soppeem di rakk ci xalifa bi muy cheikh Mouhamadul Bachir maamam mooy xaadimul Moustapha wam moom mooy xaadimul xadim sa maam mooy xaadimul waaye tey nag yow ci jamono bii ci ëttu Tuubaa bi yaay xaadimul xadim dallu woo noppalu noppaluwuloo sëriñ bi nee na ngi seedeel sëriñ Mouhamadul Muntaqa njabootam ga ca Tiwaawan di sa njabootu maam Cheikh Ahmadou Bamba dalee ko ca kër sa kër bàyyi Cheikh Awa Cheikh Mbàkke jàpp kër bàyyi Cheikh Marouba Gueye ak lu wër Tiwaawan mu ngi sant njaboot ga fa sëriñ bi am yépp ci seen dal ci seen jàmm ci seen yar ci seen nangoo liggéey ak nangu kilifteef lu mu woote ñanga lu mu santaane tere ko bàyyi nañ ko lu mu santaane digle ko ñu def ko kenn jiituwu leen ca gannaaw ba mu la jaalee bokk yi fi faatu yépp yàlla na leen yàlla bokk yërëm di santit ci làmmiñu sëriñu Haj Malick si Maodo di ko jaarale ci jëmm ju tedd di jii di sunu bàyyi si Sidi Ahmed si mbokkam njabootam gii fi ne te alxaaji Tawru Kebe jiite ko alxaaji abdullahi kebe ñoom Baye Modou Diouf bu njuufeen ak mag ñooñu mi leen sëriñ Muntaxa téye lu mu ci def yëg na ko mi ngi ko ci sant di ko ci gërëm di xam ni njaboot gi njabootam lañu njaboot ga ca tiwaawan njabootam lañu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilahi والصلاة والسلام على الحبيب الفطين سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه القصيدة الوافرية الدالية muwajjahatun ila xadrati waarisi jaddihi ahmad alxadim alcheikh muntaqa mbakke alxalifati alaam liltaifati almuridiya xafidahu allahu alkarimu naiban fiha an alxadrati almalikiya wa qailan lahu salaamun saaqahu xibbun waduudu ila man jaahu qawmun wufuudu salaamun saaqahu xibbun waduudu ila man jaahu qawmun wufuudu لتعظيم الخديم وشكر رب كريم man yuwaxiduhu alaabidu li taadimi alxadimi wa shukri rabbin karimin man yuwaxiduhu alaabidu mushayicahu bitahniatin taxallat jamalan la tuqaaribuhu alxaridu mushayyicahu bitahni'atin taxallat jamaalan laa tuqaaribuhu alxariidu wa qad cattartuha citran zaraacit ramiskin sarra fiihi almustafiidu wa qad cattartuha citran zaraacit ramiskin sarra fiihi almustafiidu wa hada baynana cahdun qadimun bihi alaabaau kaanu waljuduud wa hada baynana cahdun qadimun bihi alaabaau kaanu waljuduudu fala zaala alsalaamu yaduumu fiina wa yascadu fi xiyaazatihi almuriidu fa xuz annazma yaa man qad waristal xadiimal jadda za irsun akiidu fa xuzza nazma yaa man qad waristal xadiimal jadda za irsun akiidu salaatun mac salaamin lil xabiibil mufaddali man lahu chiyamun wa juudu salaatun mac salaamin lil xabiibil mufaddali man lahu chiyamun wa juudu kazaaka al aalu wal asxaabu turran wa hum fi lxarbi abtaalu junuudu xurrira itiwaawan bilisaani annaatiqi bismi alxalifati alaam li taifati tijaaniya alcheikh seydi ahmad si abdulaziz wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa shafiina wa mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi hadana li haza ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah alhamdulillahi alladi lam yattaxis waladan ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته suñu bokk yu tedd yi bàyyi ko ca dëkk bu tedd ba di madinatu Tiwaawan bàyyi ko ci alxalifatul aam di tariqati tijaaniya Cheikh Aboubacar Sy Mouhamadou Mansour ci ndigal ak kàddu Cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul am bil muridiyya dañuy yëkkatee kàddu yi gën a tedd yi gën a kawe yi gën a sell jëme ko ci délégation bu mag bii nga xam ne ñoom la fi yabal wa ala rasihim Cheikh Sidi Ahmed Sy mu Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Dabakh ak xam naa lim moom mooy lim yëpp waaye du ci nekk ñu ma tànn rek lim leen mooy sëñ Babacar si rakkam ak suñu ñaari doom nga xam ne ñoo jiitu waxta kàddu yi seen kàddu yi rafet na te jëkk di Cheikh Mouhamadul Habib ibnu Cheikh Aboubacar si alxalifa dégg ne kàddu yi xam ne kàddu yi yéen na moom dafa ñuy bàyyi lu ne ci xaj bu ñu ko gëmee rek ñu la koy waxee maa ngi fàttali ko daaw jëkk ñu fekk fekk alxaj moom moosu ci dama njëkk ne ma ko xam ne bu baax ndax ndax xakim la kon soxla jëm ko ko def ikraam waaye gis naa ne xakim la kàddu yi rafet na sell na lool koy sant fet di ko lay def loolu seen ji di ko ñaanal suñu borom may ko gudd fan ak wér ba mottali ay yéen di nuyu itam suñu doom di suñu xarit sëñ Sidi Ahmed si inu <coughs> inu sëñ Abdoul Aziz Al moom nag yàlla def docteur délégation bi itam boo juróom sama diggam adduna sépp xam ne ko ci cofeel ak jàpp koo xam ne néew na ma toog bis ba jeex te du ma ko tudd wala sama xel ci mënta la moo doon ak jëm bu baax ku rafet dikko ku mën a jaboote koo xam ne dundam gépp jeexal na ko ci liggéey lislaam dundam gépp jeexal na ko ci liggéey tarixa tijaan yi gépp waaye jeexal na moom mii nag yàlla def na màggalu suñu bu xel bu ma sa yëpp moom la ñu mu ñëw ànd ak teraanga yu bëree bëri bëri bëri bëri koy wax léegi na ko nag daanaka fu ma la gisee rek sax sama yaram day toll ndax boo gisee jëm jëri sa xel jëm jëm kon na ko yàlla guddalu fan mot li yéenam sëñ Sidi Ahmed yu jëm ci mbokkam di xaritam sëriñ Babacar Si Mouhamadou Mansour ak cant ak ngërëm ndax diggante Touba ak Tiwaawan naka jëkk daa mos di ndax ñaar yeneen boole da ci jëkk mooy bokku is bokku ndax bokku lislaam moom mooy jiitu lépp innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum moo tax sëriñ Tuubaa daa wax ne yaari indi rekk fi nekk innama nuun ixdun ak inna shaytaan lakum aduw mu ne nag tey gi nekk ci innama nuun ixdun ndax gi nekk ci inna shaytaan lakum aduw mu ko yàq waaye yàlla defit bokk dara boole leen boo xam ne jërut limaat àdduna sépp xam ne kon loolu nekkul sut fa lu suñu borom bëgg noonu la mu tàmbali rafet rafet ba ci ñoom ba agsi nag ndax Cheikh Sidil Hadji Malick mas naa biri ñaari bayit yónnee ko ko hadiyati mujib fa tiraabu mahabbatan ya ayyuhal hubaab adaama rabbuna lana xadda bisaan wa kuffana charra allazi ala wasal looloo tax na diggante bi dara mënu fi am ba ca des Sëriñ Tuubaa tontu ko jasaakum xeeral wahabu وفي صفا الفتن وفي صفا الولاد لا ترتاب فكيف لا والمصطفى المجاب إمامنا والقتلى نهاب كل مسلم كرفت ñi fi jaar ñëpp tàmbalee ci Cheikh Sëñ Babacar Si mi nga xam moo ko njëkk wuutu ba jaar ci alxaaji Mouhamadou Mansour ba jaar ci alxaaji Abdoul Aziz ak seeni rak ñëpp ku ci agsi def nga la nga war a def la ca mujj mooy Cheikh El Hadj xam na bi mu fi ñëwee ajjuma siyaare fi Sëñ Buxaari ki jokk bokk jotaay bu am solo bu kenn du ko fàtte jullee fi ajjuma mu rafet Sëñ Buxaari ne ko jiiteel mu ne ko yaa war a jiite ñu génge Sëñ Abdou Sëñ Abdou daal di xam kon loolu mbaax googu rek mooy li nekk ci yéen ku leen gis rek ba ngeen di xam ne ku bokk ci moom mënta def lu mu baax loolu yàlla di ko defal yàlla def it ak Cheikh Cheikh si Seydi Abdoul Aziz Al Amin bi yàlla defee jamono yi si si Muxtaar mu ñëw seet si ko ay yoon yàlla defit mu jokkoo mu te jokkoo wala cëpp di jaare ci man ak sëriñ Xalifa Lo mu ne daal sëñ bi daal du ñu gën a gore kàddu yi yëkkati jëme ko ju julli ñëpp daal nañ fexe bu mu yàqoo ci ñun na ma ko waxee woon nag xam nga ko fonk kàddoon daal du def lu mu gëmut seen juum du tirise lu mu la woon rek moo ne ci moom damaa fàtte waxee ma moo waxoon waaye daal ma wax ne sama baay neewoon na ma ku ne la yàlla nga xaritoo lañ ci lañ ci teg laa fàtte waaye xam naa yéen yéen ma fa gën a maîtriser waaye waxoon nga ko ba tàyyi maa ngi fàttaliku ko bis am na rakam ju faatoon ma jaali ju ko teewoon deux mille onze yaakaar naa bu juut wala deux mille douze lu ko sori ci waa Kër Sëñ Babacar Sy kenn dafa day génn mbooloo bi ànd ak mbégte mu rëy naan tey daal bu ren bu ren di ni daganoon kon ku si ku sant si dañu ren loolu kenn mënu ko weesu moo tax duñ ko fàtte duñ ko ñaanal di a yóbbu mooy ci ko ñaanal suñu doom dëggal ko kàttanam mottali yéene waajur ak rakkam sëriñ Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moom it ma ngay taxawee la ko bàyyi waajuram bàyyi woon waaye yow itam gis nañ sa taxawaay ndax dafa mel ne doon nga sëriñ bi ci mission kon nag yàlla bu amoon lu baax nga fa nga jëm sëñ Sidi yow dañ lay sant bu baax ginnaaw bu ñu sëriñ sant sëñ Babacar ndax. njëkk sëñ Babacar si bu nekk gi mosoo ko manqué màggatu sëñ Buxaari mosoo ko ak mbaax rek moo nekk jaww ak yéen kàddu yi nga bari yëkkati sax xam noo koy waxee ndax de mbégte bopp kon nag ñëpp la amee lu cant ñëpp la amee ci lislaam ji ak defar yàlla na la ko yàlla fay ba suñ doon wax istajibu lillahi wa li rasuli isa daawakum li may yóbbu yàlla la ji suñ borom boole ñu ngi lay beral suñ cantu bopp nag ndax sa cofee ci man lu yàlla def la cofee ko koy def kenn mënu ko kenn mënta bëgg ko lu neex yàlla koy def ci waaye cofee gi nga am ci man adduna sépp xam nañ koo gis muy nit ku baax sax nga ne ku baax xamante ne ba si ku dem bay koo gis jàpp ne nitu yàlla la ba nit ku baax moom nga yëkkat si alal jox ko ne ko bu ko fàttee ci ñaan kooku xam nga ne dara loolu lu baax néew ci la suñ Sall mu Cheikh Mouhamadou Moustapha daal seere suñu doxal di wax ne euh, suñ suñ Moustapha Sall moo ko daw moo ko doon wax suñ Sall ambassadeur ne ko suñu doxal di li téere yi jàngale di wax njës Sall ak rëy ak kañaan bu ko jàngutul du ko xam du xam ne lu am la waaye yow itam loolu mën nañ la ko jox bu fekkoon tamit loolu jàngoo ko ci téere jàpp nañ ne amoo ndax jubóo moom ñëpp rafetal nga sa digg ñëpp di ko jeexal nag ci Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour sant ko Cheikh Mouhamadou Mountakha sant ndax suñu borom mooy dajale nga xam nga ne kat suñu laat mas jóge fii dem ba Tiwaawan yàlla na jël Serigne Al Alhaji Abdoul Aziz fi ak yoon siyaare si ko. sëñ bi aussi sëñ Amady Moussa nett lu am xorom bi sëñ bi daal door a doon doon xalifa moom la ko nett ci gémmiñ ñu ne dama fay ñëw sëñ bi tëju ma tëju bu métti nangu ma wax fekk boo yi moo ko a jóg nee na bu métti fasal ma karam mu mu yóbbu ma ma waxee ñu bu ñetteel ba rek mu agsi fekk nag bo néeg bi ma dara mu fees te léegi teraanga ak fa ñu waxi teraanga yëpp nee na ma nag ba ma terale ba noppi nag mooy doon bëggoon tuuti ñu waxtaan lu a jug hmm. ma ne ko nag li ma taxoon a jug de mooy juyoo yi am ci biir ci weer yi mu jeex suñu bilaat bi na natt naa la ba seetlu la ndax ñëw nga fi ñett yoon bu cee dama laata ñëw daanaka gisuma du waxuma yow dama doon xool ba xam ndax li ngay dox ñor na la de waaye léegi nag xam naa ne ñor na la kon amatoo fajam biir kër gi kon man xam naa lu bari ci lu defaru lu gën a defaru sax laay loo xam ne ginnaaw yàlla ci sama loxo ak loxoom la ko yàlla jaaral kon ñu ko ñaan suñu bërëb bu lay leen taa suñu barki di jeexale nag ci ci sëñ Babacar Si Mouhamadou Mansour ndax moom daf fekkoon diggante bi rafet lool waaye bi mu agsee rek dafa jël ci jikkoy waajuram moom Alxaaji Mansour ndax moom ku ne xamoon na kóllëre gi mu amoon digg yooyu adduna si xam na moom kenn wala ko xam histoire xam la jëkk la njëkk def nag mooy xam ngeen ne sëñ Abdou Aziz àgg ca njëkk def boobu bu la yónnoon yéen mu doy bu yónnoon sëñ Maodo waaye dafa déplacé wu ñëw wañu wan ne li ngeen nekk ànd naa ko yéen loolu bu ci doon doon sëkk kon bu yónnee waat tool tam loolu doon na xam nañ responsabilité xam fam toll xam fu mu toll jaat loolu nag kenn du ko fàtte bi itam gis ngeen ne at mu jot dangay dangay xam ne bu ko mënoon lu yónni kenn mu ñëw boppam loolu la yónni ko bu baax ndax ñu ngi yónni kenn ci kenn ci kenn ci rek ëpp na délégation kon sëñ bi koy sant di ko gërëm di ko ñaan li tam nag ak di ko ndokkeel ci liggéeyam bee muy defal lislaam di ko defal maamam muy jàkk bi nga xam ne sama jiwu tedd boobu moo ko tàmbaloo bu mu dikkee mu jël yi teen jëpp def ko ci suñ borom it dimbale ko ci defal ko ci tawfeex ndax yàlla moom ku ku ci ne ak sa cër waaw mu def ci yitte def ca taxawaay mu jënd yitte lu weesu jàkk ja ba yàlla suñu doon def liggéey ba sotti sëriñ bi mu ngi ko cee ndokkeel ci liggéey boobu nga xam ne lislaam jëpp lu ko defal waaye maamu ko defal di ko ñaanal nag ndegam àgg na jàmm yàlla na sotti sotti ba mu jiiteel ko boppam te wax ko lu yàgg yàgg suñ doom daal jàkk lépp mu def ko waaw loolu kat ndamul lislaam la ndamul ñëpp la wala képp ku bëgg lu baax kat képp ku bëgg nga ñaanal mu ubbi ko jàmm te teewaat ko lu yàgg yàgg yàgg yàgg loolu ba ba na ko soobee rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس